asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah lundi 4 mai 2020 ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb fa la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi xëy ñëw tey dalal ka nga xam ne nii moo di Tapha Kandji bokk ca staff ba nga xam ne ñoo yor Boy Niang bu dégool moo mu mel ni ki nag ginnaaw bëri ki dimb ci alxames ji nu génne Thierno Gueye moo génnoon wax mu mel ni ki nag moom tontu daal du forox loolu la olof yi di lépp daa mel ni ki daal bu fekkonte ne Thierno dafa génn di wax ak ñoom ne am na ay xale yoo xam ne daal bis bu leen Balla Gaye jàppe wala ay mbër dana la muy bëgg ci ñoom mooy leen ba nu mel ni tigadege wal leen ba ñu nooy daa mel ni nag tafaakaan ñi ne na ko la engagé waaye man sama mbër di Boy Niang moom jàppal ni kunut Balla ba mu mel ni dege te nee na ko li leer ba de leer daal mooy Balla Gaye de ci ni dege loolu mooy ki nga xam ne nii moo tafaa daal daa mel ni tontu na Thierno ba mu saf sap waaye yemu ca de nee na kii di Gris Bordeaux mu faas tafaakaan ji nee na ko yow laay waxal leen ñett ñi moom mënu ngeen a a wax a wax ba yéen du ngeen bëri ak Boy Niang Tapha daal loolu la xëy tey wax ko mu mel ni kii daal kon waxante ba doorati na ci diggante ñaari mbër yooyu wala boog ñeleen yor ci seen wàllum mystique ñeneen ñoo xam ne nii moom ay mbër lañu di ñetti mbër yoo xam ne daal daa mel ni day topp nañu tànk ka nga xam ne moo di Bombardier ak Siteu ak rëg-rëg ca wàllum MMA ba muy guy gi école Mor Fadam Abdou juuf ba nga xam ne ni moo nekk ca Géejawaay écrit waalo ak kan bàyyi ma njoon bu sa bopp ca caaro gouvernement moom dugal nañ ca seeni loxo fas ca yéene bokk di ko pratiquer loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne moom sunu làmb ñëw na xëy si xëy moom waxtaan wu yaatoo waatu muy super étoile ma ca New York super étoile nag wax la nag la nga xam ne nii moo ko neexut ci làmb ji rawatina li nga xam ne nii moo di promoteur rek ni mu jàpp ne noonu la ñuy joxale ci mbër yi maanaam daal mbër mu mënta mobiliser amoo ay billets deesu la tëgg mel ni kii nag loola moom metti na ko waaye taxul mu génn ay bu tam ca Malick Niang jàpp na ne daal diggante ak Malick Niang moom daa jàpp ne diggante la boo xam ne nii day bu a mën a nekk la te itam bees war a mën a taxawal jàpp na ne Malick Niang sax ab ragal la wala boog da koo ragal mooy ay waxam Gris Bordeaux sax boole na ko ci ndax nee na li am ba des daal moom giri Bordeaux ci boppam war na koo mën a may saas ñu ñëw bëre ñoom ñaar loolu mooy ay waxam yi nga xam ne nii wax na ko wala mu jàpp ne daal Gris défi ba nga xam ne nii lancé naa ko ko nee na dafa war a accepter défi défi ba nangu ko ñëw nu bëre Sa Thiès ak ñoom yi ki ni si yor ku ci nekk daal jàppal kii nga xam ne nii moom moo di super étoile xëy na tey ñëw ci yow waaye mbirum réussite am moom li des ci àddina jàpp na ne day daa mel ni ci nii mu waxee daal ne na moom konteetul ci làmb ji à cent pour cent daal réussite am la gis de moom ma nga xam ne nii mooy super étoile keneen koo xam ne nii moom mu ngi ci lamb ji di dóore dóor na ñaar ñu daanu yëglikaay bi ñëw ci moom muy doomu dangu muy ñaq jariñu ak ka nga xam ne nii moom moo di soq mu mel ni ki daal moom loxo ya acier daal la ko yëglikaay bi tuddee loxo yu doy waar la yor bu la bàccee gos moom seet fa ngay daanu ngay def sunu làmb xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni kii noonu ci mbër moo mu nga xam ne moo dëkk ca Tëngéej meneen mbër moo xam ne nii moom mu nga dëkk ca Joof yor muy Duudu Saane ñu naan ko Xaddaafi moom nag benn combat la jot a bëree ren daan ko ci fa nga xam ne mooy ci arène nationale moom nag am na lu mu xëy wax moom daal di leer ba leer daal mburum si nga ma daal nee na bàyyu fi kenn nee na ba ci roi des arènes bi sax nee na ku ci ñëw mu jàmmaarloo yow bu baax a baax a baax làmb ji itam nee na la tax mu dugg ci moom réussite daal la ci bëgg ndax na nee sax lii di ay njàngam moom arrêté na ko ngir fas yéene nag taxaw waa këram rawatina ay rakkam ndax nee na daa teel a ñàkk way jur wu góor te ay rakkam yaakaaruñ ci kenn ku dul moom moo tax daal fi mu nekk nii moom nee naru cee caaxaan wala mu ciy fo da yéene wane boppam ba mu saf-saf loolu waxi ki nga xam ne nii moo di xàddaafi la ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb leneen loo xam ne wala beneen yëglikaay boo xam ne record la ñu koy wax dañ fay dem ñoom moom Bombardier la ñuy laaj ndax maanaam daal bàyyi làmbam ci naka la ko was yéene yéenee taxawe wala boog nu mu ko fas yéenee dunde mu mel ni ki nag moom mu nga installé ca diggante France ak yoo xam ne ni daal ay yëngu-yëngoom la ci dëkk yu mel ni ki noonu Bombardier tey record na ñëw ci moom keneen koo xam ne nii moom record ñëw na ci moom ak ab écrim moom bu ay mbiram di dox moom daa mel ni ab écrim moom dox ga lool muy Modou Lo Rock Énergie nga xam ne moom la jiite daal saison bi bi mu commencé ak fi mu taxawe benn victoire la am ak juróom benn défaite moo tax yëglikaay bi jàpp ne day lu catastrophe la ñu am bi tudde ëllëg ka ko sauvé sax ba tax meublé daanul ba toj wasaaro mooy ka wax ka nga xam ne nii moom a am ndam na mu mel ni ki nag moom Modou ma moom it am la di a ànd ak moom yàgg koo jàppale ñu naan ko am di ko mu mel moo ñàkk bu góor loolu yëglikaay na tey ñëw wax ko keneen koo xam ne nii moom mu mooy ki nga xam ne mooy faa bi filir ak feebar ba nga xam ne moo ko tëral mu war di évangéliste moom daa mel ni gars yi daal seetaanuñ ko daa mel ni ñu ngi cay dugal seen ay lox muy jóge Pikine di dem la nga xam ne moo di jalis ba moom jàppal saa yi door koo mën a def keneen koo xam ne yëglikaay baa ñëw ci moom muy Cheikh Tidiane Niang moom nag na muy dunde koor ga daal ca la xëy ñëw wax ko nga xam ne moo di Abou Ndour moom Cheikh Tidiane daal la mu xam ne lenn la nee na li leer ba leer daal moom sëpp kanja ak mbaxalu Saalum préféré na ko mu mel ni kii nag kon Aïssatou Faye yaa ma waxoon ke nu ñuy toggee li nga xam xam mooy yàpp bu amul diwlin tey suppu kànja la ñu wax mbaxalu saalum xanaa di nga war a xam nun koy togge donte nee nga naar nga seex tiijan lii la taamu ci koor gi mbaxalu saalum suppu kànja salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal leen wax na moon nañ leen weekend bi guddoon na lool mais bon fête du travail moo fa jaar Babacar ma leen nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay Aïssatou Faye ah, di la nuyu di la yëpp comme ni nga ko waxee ah fête gi guddoon na waaw fête gu bëri nag mu wax dëgg yàlla du def lu dul rey yaram quoi day tayal loo yaram quoi man ay sa fête dara dara laa ci waxul ni nga may gis nii mm. su passé Tabaski màggal gàmmu ak tamxarat ak yooyu. waaw ak korité waaw yi ci des daal moom mën nañ koy bàyyi muy jàll ko day day rey yaram. dina liggéeykat yu la mere Babacar parce que nag liggéey ak noppal ba faa ñooy ànd. <laughs> waaw Babacar dañuy daal di dugg ci li nga xam ne nii mooy waxtaan bi seet ki nga xam ne nii mooy euh, Tafa Kandji moom nag euh, ginnaaw bu ki nga xam ne nii mooy. Euh, na Gueye ñëw na wax ci mbirum a Gaye moom nag añu na tontom parce que moom it mooy ànd ki nga xam ne ni mooy Boy Niang parce que nee na kii di Balla Gaye du kii dóor mbërëm ba mu tëdd Babacar waaw maanaam daal daa jàpp ne dóor koy abal ay loxo moom Tapha mu mel ni kii fan yii loolu am na ceer nag keroog dafa waxoon ne moom ah euh, am na mbër yoo xam ne daal li mu bëgg mooy Balla jàpp leen wala leen ba nu mel ni degee waaw mu mel ni kii nag wax mu amee ah daa mel ni dañ ko awale ca côté Boy Niang moo tax waa kër booy Niang euh, daal di wax wala fi nag dañuy wax ne ku aj mooy gën a bañ ku séentu daa mel ni mel ni ki nag tontu ba am na li am solo nag mooy wax ji bëri na ci diggante ñoom ñooñu waaw Kandji moom Tapha ne na loolu mënta ne Balla mënu ko waaye ndax mën na ko wala mënu ko loolu moom ah sunu kanam na leen waaye nag wax ji bëri ci seen diggante entre Pikine nag Guédiawaye Boy Niang Balla Gaye numéro 2 la ma waxoon sa combat ba nag laa ciy waxaat rek yaa ngi dégg combat boobu euh, pour mu am mu gaaw lu ci bëree bëri dafa tënku ci côté Balla Gaye numéro 2 pour mu gaaw ak tamit ci promoteur bi koy bëgg parce que day nekk combat boo xam ne taxawal bi du yomb waaw du yomb waaye comme katafaakaan yi ni mu ko waxee waxoon naa ko te yaakaar naa dëggal na samay wax lim na bi ay adversaire muy Gris Bordeaux ak Tapha Tine ne ay adversaire Boy Niang lañ te dama naan loolu yaakaar naa itam xel war na ko mën a nangu waaw. waaw Babacar adversaire bëri na ku nekk promoteur bu nekk war naa mën a jukkee fu ko neex rek tëgg affiche bu neex ñu daal seeti ki nga xam ne ni tamit mooy ñoom euh, guy gi ñoom Abdou Diouf ah ñoom bàyyi ma ñooñu nag nee na ñoo bëgg dugg ci li nga xam ne mooy MMA. MMA bi waaw xaw ma nag lu xew

mbër mi bëree rek rek war a def quoi war nga mën def MMA def rugby def karaté def yeneen ak yeneen parce waaw voilà la la c'est yooyu yëpp mën na ne parce tamit xam nga xel dañ koy gën di màccal tout temps saa yoo xëyee quoi pour man am na solo. waaw Babacar euh, ñàkk lamb boobu di dox ci la ñuy dem parce que tamit euh, ñëw na ci tey nee saison bi nga xam ne euh, couvre-feu bi dañ ko prolongé ba le 2 juin. nee na est-ce que nekkul tamit loolu hypothèque ne li nga xam ne mooy saison de lutte bi. dina ko du ma ne la déet dina ko boo xalaat yoo ne dina ko xaw a hypothèque parce que tamit bu ñu demaatee ba le 2 juin ci couvre-feu bi continuer xam nga juin juillet saison ba day tëj kon yaakaar naa ren moom ah nu mu ma làmb ji dina continuer de waaw ut daal di non na ut kay balaa ñu caa yegg sax ba sàgg ne ñun ñu ne ca àll ba di bay xam ne fi ne nii ruuj nañ ba pare di waaj a faru bu nu faroo moom bu ñu sañoon mois de juin ci mu ànd ak jàmm.

ah waaw ku ak xamul fa nga jëm da dellu fa nga jóge parce que nag làmb moom wërsëg a ngi ci am na ñoo xam ne seen wërsëg daane ci làmb am na ñoo am tamit ci la yàlla ubbee seen wërsëg ci làmb que ce soit mën nga nekk mbër réussir sa ci làmb mën nga ko bañ a réussir mais làmb ubbi la yeneen opportunité yoo xam ne yeneen porte yoo xam ne di nga ci a jaar pour réussir Super Étoile nag mbër na boo xam ne li ñu wër ci mbër yëpp a ngi ci moom waaye nag xëy na fi mu waroon yegg ci làmb ci wàllu réussite pour man yeggu fa kon tey bu gisee loolu ba nangul ko boppam tamit mooy li nga xam ne ni moo lay dimbali nga xam ne lii ah mën naa mën nga ci li ci say morom man mais xëy na wërsëg yi duñ ci doon benn waaw ba tax na waaye terewul tamit mu ngi waxaat ay combat ndax gis naa ko muy traitement lig ñangi comme mu wax tamit defe naa lu am solo parce que dama dem benn dama dem mbuur man nag yàggamaa rek ndey ku ma faal fekk fa benn mbër man su jot numéro 2 xam nga ko baax a baax mu ne ma ñoom la de guerre samay génération dama dem ba xam ne wërsëg bi leen yàlla jox ci làmb joxuma ko ma nangu ko dem nekk ci leneen sama métier boole ko làmb ji ba tey métier am yor na ko macha allah mu nga mbuur di dund fii boo xam ne ni wax dëgg yàlla dama naan bu newoon ci làmb ji continuer rek est-ce que dina demee noonu nit nag waaw euh, su ma papa Max Mbargaan ma koy nuyu di ko siyaar ne làmb tegandaay la te moo gën waa tegandaay la da ngay ut leneen ca côté ba def teg ci bu demee ba làmb ji dox tu nga continuer ci la nga nekk loolu moo am solo Babacar am na koo xam ne nii mooy du saane moom tam ñëw na moom nee na du fooyee li nga xam ne nii mooy làmb parce que daf ko jaral mu bàyyi jàngam ak lépp pour dimbali ay rakkam parce que ay a gaañ mu war a nekk responsable war a am fu mu taxawee ak ay frère moom nag yaakaar la def ci làmb ji. waaw yàlla na ci jëlee lam cay wër. parce que loolu wax tamit nitu joma koy wax. te teel a ñàkk way jur bu góor nekk xale am ay rakk yu jigéen nekk si école bi di jàng dugg ci làmb pour tamit a taxawu sa famille loolu yaakaar naa ne itam duñ mën a def lu encouragé ko ci yàlla na ci amee réussite te xale la boo xam ne yaakaar naa ak ni ñu ko gisee ci làmb simple bi ak li avec frappe bi bu continuer ëllëg dina nekk dara yaakaar naa nag loolu bokk na si jom aysa ah am na loo xam ne nii <laughs> waaw ginnaaw dañ ne ginnaaw ginnaaw ndey ak baay taaway dogal bu dee nag yaay taaw di góor mu am nu mu demee la war nag mu nga futteku nag Babacar ñu jógee fële di sunu lamb ci Rock leen benn mu daal di gis ni c'est catastrophique parce que benn victoire lañu am ak six défaites. waaw muy lu doy waar ah bi bi débuté ak fi mu taxawee maanaam sept combats lu six victoire benn défaite ay solo doy na waar trop. wax dëgg yàlla six six waaw benn victoire ah. Mm-hmm. te victoire bi xale bi ñuy wax armée numéro deux moo ko fa am. Mm-hmm. ah loolu moo lay wan ne nag daa mel ni kon ñoom nañ nañ départ wax dëgg yàlla bi saison bi taxawee baaxul. Mm-hmm. kon nag yaakaar naa ne ah, instant ba yore kii ba ñoom Pape Mbaye ak ñoom Ibou yaakaar naa war nañu gën a liggéeyaat parce que tamit loolu yaakaar naa nekkul résultat boo xam ne vraiment bu baax la quoi par rapport ak tey rek presse yi mi nga xam ne tey waa des arènes fa la yeewoo mu nekk ngir boo xam ne tey defe naa ne yàggu fi waaye nag fexe na ci làmb tey bay ba produire lu leer a leer a leer kon yaakaar naa tamit loolu ñoom dinañ ci veiller bu baax a baax pour en bu yeneen échéances tamit ñu gën a liggéey xalaat naa. Euh, record yemul foofu dem na seet ki nga xam ne ni mooy pompe euh, hmm. daal di xam xamal ni ni muy préparé li xam ne conversion am maanaam bu jugee ci làmb ci leneen lu ñuy jublu moom nee dafa bëgg installé wu fi nga xam ne ni mooy France di fa mën a activité waaw France te xam naa ne moom neex na ko trop moom Bombardier xaw na waaye France neex na la trop waaw am que yaakaar naa itam nekk dëkk boo xam ne defe naa na ko trop moom Bombardier ñu koy ñaanal daal retraite jàmm xam nga di ko ñaanal yàlla retraite u jàmm parce que tamit làmb moom dugg ci ak làmb ni mu garaaw ni mu dalas ni nga dugg ci dugg ci ba war a génn tey nga génn si jàmm la ak càmm la ànd ak dal comme ni ñu ko waxee nag comme la taamu ngir defa mën a fay activité mm-hmm. ah yàlla na ko am ak jàmm comme <laughs> madame moo nga fa am na ko ah, ah, waaw daal di jeexal ak li xam ne ni mooy euh, Cheikh Tidiane Niang moom mu ñëw ci kooram ak li ko ciy nekk moom nag nee na suppu kànja la préféré li xam ne mooy mbaxal saaru <laughs> waaw ay sa suppu kànja ak mbaxal saaru war naa neex <laughs> ah supu kànja benn supu kànja moom wala bëri na ay façon. ah ba supu kànja benn la am mais peut-être togg togg rek baaxul gan su bëri façon. Hmm. peut-être boo demee si togg ku nekk rek ak ni muy togg. ak ni muy togg parce que togg bu nekk rek da nga siy jaar. yow ay ngi supu kànja ah yàlla ko def na macha allah daal. man de ko am na lu mu def si ñun. Ah, <laughs> macha allah. kon noonu la demee kon nag Cheikh Tidiane ñu koy nuyu di ko ziar moom noonu la ko waxee supu kañ mbaxalu saalum. Hmm. mbaxalu saalum moom defe naa mooy bi am gerte bu weex. gerte noflaay bi waaye ñuy ji profité nuyu Saalum Saalum yëpp wala tam plat bu neex la te souvent boo ci defee ay quelques morceaux kii <laughs> ay sa sa retour sa ak yi loolu dafa doy waar ma xoolu Saalum di nuyu Saalum Saalum yëpp ci loolu seeti jaan daal noonu la ñu tey am na solo <laughs> waaw waaw kay ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñu ngi suivre seen revue de l'arène ñu ñaanal jàmm ñu munti nekk si àddina d'accord di nuyu sama soppi boobu noonu dëkk Wakaam. waaw Kële Mbeex Mbay. waaw Mbeex Mbay nuyu naa la bu hmm. baax jot naa vocal bi. koo hmm. bëgg bëgg na la ko sopp sopp naa la yéen nañ ci nekkal lu ñuy def rek pour di leen lu leen bégal la. Hmm. may nuyu ñëpp di nuyu sama borom kër sama yaay samay gorog samay njëkke di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg Leewtoo TV. waaw noonu lay demee Mbeex ñu koy nuyu depuis Wakaam ah moom ndeysaan soppe la te itam ku yàgg topp ñu def koy ñaan jàmm yi soxna su baax mu dëkk ca Wakaam maa ngi koy nuyu tamit ku mel ni Khady Rose Ndiaye ca Allemagne bu ma ko fàtte tuuti yaay sa Espagne ak ki nga xam ne nii moom mooy Omzo Garga moom tamit depuis Italie ñoom Serigne Ndiour Ndongo Fall Habib Ndoye ñoom ñëpp fu ci waay nekk di ñu suivre à travers le ñu ngi lay ziar di jàmm di ko sàkku ci yow basoka bu ma ko fàtte mbëri ñoom Super Étoile gaa yëpp ay